أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله كاشف الغمة وصلاته وسلامه على شفيع الأمة وعلى آله وصحبه الأئمة ومن تبعهم بإحسان واسترشد برشدهم إلى يوم القيامة mushahidi wa mushahidati Leuz TV assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñi baaxoo di seetaan ndaw ak diine si Leuz TV ñu ngi leen di jaajëfal ci topp gi ngeen ñuy topp ñun waa Leuz Média ñuy programme yépp la di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla yokk seen tawféex yal na yàlla yokk seen sutura yal yàlla defal leen jàmm ci biir ak ci biti yal yàlla dëppale leen ak seeni soxna la ndax ñi ngi waxtaanee Euh, comme ni ñu ko waxee azziwaaj waaw ah, mën nañ ko wax xawma mariage wala lan mais daal moom la ñuy waxtaanee bi passé ñëwoon nañu ci baat bi rek baatu an nikaax mooy lan ma waxoon la rek li muy firi mooy jël mbir dugal ko ci mbir loolu lay firi gudd gàtt ràmbaloon nañu ba indil la ne wax la ne wax la ne sëy commencé wul tey hmm, commencé wul tey ci aadama ak aw awa ba suñ jonn yàlla tey sëy mi ngi am waaye kayfiyaat yi maanaam façon yi moo doon wuutee léegi nag bu ñu la waxee asdiwaaj mën nañu wax ne mbir la moo xam ne mooy may kenn ku nekk ci ñaari way denkante yi mën a bànneexu ci moroomam waaw kon maanaam sëy moom mooy mbir mi daganal jigéen mu mën a jaxasoo ak góor comme mooy mbir mi mën a daganal jigéen góor mën a jaxasoo ak jigéen waaw yàlla suñu boroom mi ngi wax ne fankixu ma taaba lakum yi annisaai naa wa thulaatha wa rubaa mu ne lépp lu leen soob si jigéen ñi nangeen ko jël na ngeen takk ñaar walla ñett walla ñeent am na ñu ko firee noonu mais am na ñu ko fiire neneen waaw am na ngi def deux plus trois plus quatre kon daal yàlla daganal na góor am lu ëpp benn soxna bu maandoo mais loolu ñëwaguñ ci loolu ay benn soxna ñaari soxna ñetti soxna loolu waxtaan ci teel na lool par rapport ak tomb yi ñu bëgg a waxtaanee léegi bu ñu waxee ne sëy moom mooy jël mbir dugal ko ci mbir ko dafay am façon siira siira bi maanaam naka lañ koy defee naka lañuy ñuy fasee sëy mën nañu wax ne moom mooy ponk bi nga xam ne a ma yëpp dañ cee d'accord ay ma yëpp nag buñ ko waxee xam nga yëpp baatu wolof la yëpp mooy yi ëpp mooy la plupart xam nga suñu borom subhanahu wa taala dafay wax naan yaa ayyuha nnaasu taqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxida wa xalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqu llah alladi tasaaluuna bihi wal arxaama inna allaha kaana alaykum raqiba xoolal eh, xam nga dafa wax ne yaa ayyuha nnaas kooku bàyyiwul jullit ak ku dul jullit nit la wax yéen nit ñi bàyyi leen xel seen borom bi nga xam ne moo leen bind si benn bakkan comme que aadama lay wax aadama moo aadama ñëpp ci aadama lañ jógee chrétien bi juif bi keneen ku dul ku xees ki ku ñuul ki ndaamali ñëpp ci aadama lañ jógee moo tax yaa ayyuhan naas utiliser allazi xalaqa min nafsin waxida wa xalaqa minha zawjaha mu génnee si aadam soxnaam mooy xawa wa bassa minhuma mu génnee si ñoom ñaar nag rijaalan kasiran wa nisaa xoolal rijaalan kasiran la wax daal di wax wa nisaan ah rijaalan kasiiran mooy góor war na late waaye jigéen warta late late mooy fu nekk waaw jigéen warta late waaw waaye nag jigéen war naa liggéey nag jigéen war naa doxi soxlaam nag waaw jigéen war naa liggéey su moo ko waxee waxuma si baatu sensu war na comme war na mais jamono xëy na moo toll foo xam ne am na loo xam ne boo ko fa bëggee yemale bu dee charian la wala leneen ngay waxtaanal soo moytuwul euh, daa sa wéet waaw doonte ne jigéen nag wax xar na fii bu yutikun na waaye loolu kan lañ ko wax ñan lañ ko wax ñan <laughs> ñan lañ ko wax wattaqullaa na bi bihi wal arxam mu ne ngeen bàyyi xel yàlla bi nga xam ne yéen yàlla nangeen ko bàyyi xel te ngeen bàyyi xel mbokk ndax mbokk yàlla daf koo bind ne ko dama lay wàcce comme ni ko mag ngi jàngale mbokk jooy ne ko su ma demee dañ may dog yàlla na ko demal boo demee ku la jokk ma jokk ko ku la dog ma dog waaye mbokk yi lan mooy jokk mbokk mooy lan ak dog mbokk mooy lan lan mooy jokk mbokk ak lan mooy dog mbokk bu ñu xamee ñaari question yooyu rek lu bari mën naa woyof bëri na kuy wax naan dafay jokk mbokk fekk jokkul mbokk dafay lu yàqu ca mbokk ga moo ko yàq bëri na ko naan dafay jokk mbokk fekk lu yàq ca mboq ga yaa ko yàq parce que jël nga sa téléphone di woote woo nga diw waxtaan ak ma wante ko ana diw woo ko diw di gën naa xaajee mu ne kooku dafa bon du woote ah. yow mi woote ba jëw nag yow yow koo gën kooku dafa bon lijjantiwul kenn yow est-ce que nga ko ndax xam nga diw lan lay dund ndax xam nga yan coono la nekkee ci àdduna ndax xam nga yan jafe-jafe lay dund ak kooku de moom faaletul kenn lijjantiwul benn mbokkam dafa am yeneen i xarit maa ndax xam na ay mbokkam. ku xamul say mbokk kay ña nga xam ñoo ñaay say mbokk koo xam ne juddu nga ba toll na nga toll juddu nga ba toll ni sa ndey wala juddu nga ba toll ni sa baay mosoo xam kenn buñ la bëggee xasee na la xamoo kenn waaye xamoo kenn kay parce que xamoo leen xamoo ni lan lay amee bàkkaar mooy lu mu xañ lu mu xam ba pare lànk ko waaye loo xamut xamoo ko waaye nag boo xamul tamit bi mu teree fexeel yow itam nag nga jéem a liggéeyante ba xam say mbokk ndax kat nit almaro kasirun bi ixwaanihi nit kat bu dee moom dong dafay wéet waaye bu dee moo mook ay mbokkam bari dafay bari dafay bari doole kon loolu lu jar a bàyyi xel la bari na ku lay wax dafay dog mbokk dafay jokk mbokk fekk jokkul mbokk lu yàq ca mbokk ga moo ko yàq parce que boo bëggee lu ne lu ne nga teewee ca ku ne nga wax ak moom ku bëgg a jubóog ñëpp faw nga nekk naaféq nit da ngay am principe nit da ngay am principe nit même bu ngeen jubóowul yéen ñaar sax. war ngaa am yow benn benn dignité benn grandeur sa diggante ak sa bopp yow kon loolu lu jar a bàyyi xel la waaye doo jàng ba ne ar jàng jàng dem jàng dem dem jaalaak maa la ñëw ñu di la dugal ci yoo xam ne teguwul fenn nga di ko nanguwut ba ba nar ba nar yàq sa àdduna waaye nag lu mën di am nag rafetal moo ca gën loo mën di gis rafetal moo ca gis ndax rafetal moo ca gën ndax koy ñaawal ëllëg des na la yedd waaye boo rafetal kenn du la yedd ah yow kay sa mbaax gi moo la yóbbee lii mën nañ la koo wax de waaye mbaax moom mooy mujj gañe waaye sa mbon gi moo tax nga am ndam gi nga am ku ko am doo ko mujjee ndam li nga am sa mbon gi moo tax nga am ko ku ko amit doo ko mujjee kon mbaax rek a sakkan lu mu néew néew dafa sakkan bala ngaa xam ne mbaax a sakkan balaa ngay xam ne mbaax a sakkan nga def lu bon ba yoon jàpp la su boobaa nga xam ne mbaax rek a sakkan loo détourné ay milliards lu mu bari bari bari bari waxuma nag ñuy jël ay nit jël nit wut ay ay ay ay ay ay ay ay preuve yoo xam ne nekkul takkal ko ko ne dafa nàngam dafa nàngam dafa nàngam loolu moom kenn waxu ko boo yaa xam loo doon nañ la tuddal tur woo mën di tuddu tur woo mën di tudd boo rëccee fii doo rëcc fee te sax doo rëcc fii ak koo mën di tuddu ñu naan la chef de quartier directeur de cabinet woo procureur woo président woo ak koo man di doon wutal nga ay preuve yu nekkul takkal ko nit ak koo ko man di taqal ak ku man di doon nag yi nga doomu aadama yi nga yàlla nit ñëpp ñoo yem ca moom nga sëriñ bi sant nangam ak euh, baadoole bi sant nangam ak néew gi yëpp a yem fa yàlla moo tax nit doomu aadama dafa am dafa am xiima ca yàlla moo tax gis nga boo ko takkalee mbir pour bëgg koo yàq la nga la ko taqal pour yàq ko ci la ko yàlla may mu taxaw ci loolu pour set wecc ak xolal ak loo mën di am nag moyen de communication dajaleel waxkat yi ci àddina bépp ñuy wax ñëpp di wax yàlla inna allaha laa yudiu laa yudiu ajra al muxsinina nga kuy def lu rafet ak lu àddina bépp taxawoon pour faagaagal la mën nañ laa sonal de waaye dëgg rek mooy mujj doole moo man dëgg ak nang opinion moo man dëgg waaye loo mën di dégg dëgg rek mooy mujj ndax dëgg bu mujjul rek yàlla du nekk yàlla waaw falaa na allaha maa fi nufusikum li yaxfa wa mahma yuktamillaahu yaalami mi ah, xam nga waykat bi muy wax naan yàlla am na loo xam ne fii la loo koy waaye am na loo xam ne dafay xaar ba ëllëg aw yu ajjal li yawmin xisaabin aw yu ajjal fay fay yu na ami boobu mu waxoon soit mu fay la ko fi wala mu fay la ko fële rek moo tax dëgg rek a wóor ku ca ànd ak yow dëgg rek a wóor bu la si ñëpp noonoowee dëgg rek a wóor waaye dëgg nag dafa am lu ko gën a neex mooy dëggu kon loolu ngi doon wax benn baat doo nga moo tax ñu ràmbale ba activé wala arxaama mooy li yàlla di wax ne na bàyyi xel yàlla te ngeen bàyyi xel mbokk te ngeen bàyyi xel mbokk ndax mboq kat moo waral sëy di am ndax sëy bu amee rek mbokk am waaw ko bokkulul dara amut koo gis rek am na lu ngeen bokk waaw man Cheikh mii di cameraman bi nga xam ne Leuz bi laa dajee ak moom lu ma wóor wóor mooy am na lien parental bu jege waaw parce que télépathie bi ñuy boole ba tax ñu daje fii du rek hasard même bu ñu amul woon lien parental amul woon dara lu ñu bokk ñoo bokk aadama ak xawa sori na sax ñoo bokk réew mi kon koo bokkulul dara amul waaw nga koo bokkul dara bu amoon kon yàlla dala wax na la wa saaxib bil jam wan min sabil wa saaxib bil jam mu ne dangaa dangaa dugg ci oto bi rek ki nga dendeel nii nga toog nii ngeen dendee yee ñaar rek ay mbokk ngeen yàlla mu ne na nga rafetal dem ci moom fexeel ba sa xetu poqutaan bu mu ko sonal waaw xam nga dugg ci oto bàyyi sa poqutaan mu mu tilim mu tilim ba weex am na dugg si oto nga bàyyi te bokk daal mu tilim ba weex nga laal parfon gis nga parfon boobu moo gën a garaaw moo gën a garaaw xeetu toilette bu laal parfum yow def nga musiba léegi def nga musiba nga sa poqataan bi mu weexee noonu da nga ko war a na wat xool da nga koy da koy am na ay kii yu ñuy jaay si pharmacie boo ko ci defee daf koy yóbbu mu deñ wala nga wat ko nga sango ba seet nag boo parfum yi waaw kay boo booy baax waaye poqataan bu weex tàll nga parfum ko ay waaye def nga musiba yàq nga yàq ñu li xale yi wax yàq nga ko yàq kenn du def loolu kon nga wax saaxibil jam bi nga nga arxam boobu ma wax ci baat bi si sëy laa nekk de ndax sëy mooy indi mbokk dañu bëgg ñun ñun waa ñun waa ndaw ak diine bu buñ fi jaaree wax si sëy keneen ko waxati si sëy kenn dootu ko déglu <laughs> waaw moo tax tomb yi dañ si indi tomb yoo xam ne jàppoo woon ne bokk na ci bi nga mbokk si sëy lay jóge moo tax bi ma la waxee ne la koo bokkul dara amul ma ne la yàlla bi muy waxee yow alxuraan nan la wa saaxib bil jambi wam ni sabil saaxib bil jamb ki nga bokkal vol ki nga bokk ak oto bi ki nga dendeel ci saret bi nga yéeg ki nga bokkal place bi ci estade bi ki nga dendeel ci cinéma bi ki nga dendeel ki nga dendeel même ci salle de jeu bi sax kooku saaxib bil bi la jox ko xam kon boo fay dem fexeel ba bul fa yóbbu xet goo xam ne daf leen di daf leen di poisonné empoisonné sax bokk ndax yonent bi nee na laa darara wala dirara boo yaakaaree na yow am nga liberté wu sol lu la neex am nga liberté wu toog fu la neex am nga liberté wu xeeñ lu la neex mais am na koo xam ne itam am na liberté sol lu ko neex toog fu ko neex xeeñ lu ko neex kon bul ko yàqal loolu wa saaxib bil jambi wa saaxib bil jambi mooy sa soxna si nga bokkal lal bi sax surtout ñun góor ñi nga xam ne ñun ay ay ngaaka lañu ay ngaaka lañu xamuñ dara góor gi la gën a nandite comme ni ngeen koy waxee moo la gën a dof soxna yi dañuy daj lu ne pour dab suñu bànneex ñun bu ñu ñëwee yàq lépp jox ko ak xam wa saaxib bil jamb kon mbokkoo si sëy lay jóge nee naa la te li ma la wax ni yaa ma ko gën a xam ki nga bokkalul dara bu ngeen sëyee sax bokk waaye nag néew na néew na ñi may soxna dëkk doxandéem bu yorul dara am na ñu koy def nag am na ñu koy def de doxandéem bu yorul dara nga may ko soxna waaye d'habitude bu amee rek jigéen jaa taxaw bu la neexee ma jox la benn exemple mam faa waddi wele mam faa waddi wele amoon na doom bu tuddoon alaaji Malick alaaji Malick fan la fan la jëlee soxna du ndar kan la jël comme soxna Roqee Njaay ah du ñàkk teggin de nettali gi moo tax ma ne Roqee Njaay waaye maam Roqee Njaay leen war a wax waaye nii damay wax si a si aaj ba nga xam ne fa la soxna si toll woon moo tax ma wax Roqee Njaay Roqee Njaay du woon bete bete du woon doomi Ali Ali Ali Boy Njaay ca Ndar kan moo nekkoon ndayam xaar yàlla siidi wala wala wala wala wala wala roosa siidi kan la si waaye ala kulli xaalin tàntaam moo ko yar Alaaji Maalik nekk taaliba buy jàng ca Ndar mais li ma la bëgg a wax foofu rek mooy doxandeem boobu jigéen ji moo ko bëgg ne moom la bëgg ko am boroom kër ay mbokkam bañ waaye dañ ko ko mujj may est-ce que xam nga ne Roqee Njaay boobu moom la ñuy wax maam Roqee Njaay bi jur maam Babacar Serigne Babacar si mu jur Serigne Cheikh Tidiane si Al mu jur Serigne Moustapha si moom mooy jiitu Moustarchidine wala Moustarchidaat kon pour wax la doxandeem ñi koy may soxna ñu néew la bu amul xaalis. nga d'accord ak man nga ñàkk d'accord ak man léegi sëy yi problème yi ci nekk yépp problème xaalis la am na yeneen i problème nag am na njabarante gu nekk ci biir njabarante mooy sëriñtu ndax Sénégal ku ne xam ne ne dëkku dëkku dëkku dëkku sëriñtu la su ma waxee sëriñ su ma waxee njabarantu waxuma sëriñ si ñoom ñooy ay njabarkat waaye ñiy dem si ñoom ñooy ay njabarkat imagineel yow nga dem si cheikh mii cheikh ak xolam bu rafet mu am xam-xam nday awa dem si moom ne ko daal te ndey awa ak cheikh am nañ lien parental ñoom ñaar cheikh boroom xam-xam baatin la wala boroom asraar la waxuma boroom asraar de boroom asraar la dem si moom jàmbat ko lu ko nit def fekk loolu lépp ndey moo ko créé dara nekku ci cheikh xolam tooy mu sot jëfandikoo xam-xam pour sotle doomu ndeyam loolu mooy ni problème yu bari mais nekkul ne sëriñ siy def dañuy def parce que seen xol moo toll noonu waaye dañu def parce que seen xolu cofeel bi seen mbokk si ñoom jàmbat wala nit ku ñëw wala ne dañoo néew dañ maa néewal doole moo tax nga jóg def waaye nag yàlla nee na wa maa hum bi darrina bihi min ahadin illa bi idnillah su ma neexul li ñuy def du am waaw waaye nag bul ne njabar amut am na kay waaw njabarkat mën naa njabar caméra bi ba muy dox ci mbedd mi di dox te kenn doxutee ñu ne lii nu mën a nekkee mën na nekk waaw mën na nekk ndax xam-xam la xam-xam la bu ñuy jàng comme ni ngay jàngee mat comme ni ngay jàngee leneen ak leneen ngeen baal ma xam-xam la kon sëy mooy indi mbokk mbokkoo mooy indi sëy loolu ay tomb la yoo xam ne dañ koo bëggoon a waxtaanee balaa ñuy dugg nag ci biir yuqu yuqu waxtaan bi ndax dinañ la wax labat dinañ la wax can dinañ la wax siira maanaam naka la ñuy takkee sëy ndax bëri na nag bëri na kun may jabar te te te te sëy siwul waaw bëri na kun may jabar te yëgoon may nañ la jabar xanaa xamoo ne ñett seen kaf dëgg la seen dëgg-dëgg la ñett ngi nii seen kaf dëgg la seen dëgg-dëgg la maye par exemple tey par exemple laa wax par exemple laa wax nag su ma ne woon Cheikh am téléphone bi maa la ko may exemple kon Cheikh téléphone bi à partir ma wax loolu seex moom sama téléphone bi même bu dee damay kaf lu la damay wax nag en tant que en tant que kuy analyser li lislaam wax pas a waxuma islamologue moo bi neexuñu te ñun bu bu nekkoon sax ñun tolluñu foofu muy benn. maye kenn du ko kafe maye jabar kenn du ko kafe may naa sama doom ji koo ko wax xamal may nga ko may naa sama doom ji ku la ko wax xamal ne may na la soxna même bu dee dafay kaf ak fase naa la ku ko wax sa soxna même boo doon kaf dafay tàbbi am na ay détails yuñ siy wut waaye ñett yi daal seeni kaf dëgg la seen dëgg-dëgg la maye jabar maye objet ak fase sëy fase fase jabar boog kon yooyu dafa nekk yoo xam ne moo tax ma ne bari na kun may jabar te jëloo ko parce que yëgoo ko xamoo ko wax ne mu la ah kii kay may naa la ko waxuma nag maye bi ñuy def léegi mooy maye bi ngeen def entre copain copain may ma xale bi may ma xale bi Cheikh li may wax yaa ko gën a xam <laughs> yow yii li ma xam ngeen ko yow bi si yaa xam ngeen li may wax loolu moom musiba la mu xew léegi phénomène la may ma xale bi ak may ma waa ji am na sax ñuy maye seen papa am na ñuy maye seen papa. am na ay xale yu jigéen yuy jël seen seen seen copine di leen may seen papa ndax seen papa dafa yor alal ba pare nay du leen ko jox ñi jël seen copine may ko seen papa paa bi xale bi di ko di di jël si moom xaalis di ko jox doom ci maa gharraka bi rabbikal karim ay waajile jël sa alal xañ ko sa jabar xañ ko sa doom sa moroomu doom ñëw di la doxaan si avalu sa doom wala si accordu sa doom bu jigéen ngir moom mu mën a jël alal ji ci yow di ko joxewaat sa jabar la hawla wala quwwata illa billah ay waay yow lu la dal lu la dal lu la dal kon booy xool euh, loolu sax xëy na ndaw si li mu def doy na waar mais la tax mu def ko itam mooy dimbale ndeyam ndax yor sa jabar doo ko jox dara ba sa doom engage engagé ay xale yu jigéen ñi ñëw di la doxaan yow di jël si yow xaalis di ko jox joxaat sa doom ngir mu mën koo jox sa jabar kon yooyu yëpp ay tomb la yoo xam ne dinañ si ñëw si biir ci waaj bi incha allah moo tax kon toppalee ñu rek te ngeen comprendre ñu nag ndax mën nañoo wax loo xam ne duñ ci dëppoo ak yow nangam amul kenn du ko wax nangam xaw ma ko daal boo ko waxee doon gor boo ko waxee doon doon doon garmi pire waaye nangam mënul nekk wala nangam amul foofu la tooñ commencé kon yàlla ñu yàlla defal ñu tawfeex defal leen ko ndaw ak diine booy xool nag mbokk yi bu ñuy jeexal booy xool parfois du ñu indi ay référence dañ koy indi de mais dañ koy wax ci wolof dañ koy wax ci wolof ndax tuddal la aaya après dañu koy firiwaat dafay gën a jël temps moo tax di ñuy war rek tuddal la ko tuddal la tuddal la maanaawu baat bi maanaam sens bi nga dégg ko incha allah waaw euh, incha allah ndaw mi ngi noonu ci Leuz TV allah dinañ gën am ay jotaay pour gën a waxtaan waaye topp leen ñu fii weer wala ñaari weer même wala ñetti weer incha allah ci tomb bi lañuy waxtaan ak yéen allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim eh, jumaa mubaarak